الخدم هبد وشكر وتقبل الخدم mbokki téléspectateur de la 2 yi comme ni ma leen ko waxee 18 safar oblige màggal Touba oblige moo tax tey ma am mbégte dalal sama gan du kenn ku kudul Serigne Abdoulaye Diop Bichri ma lay dalal ak jàmm ci sama fauteuil royal bii di la jox sa wàccuwaay di la nuyu nuyu murit di la bàyyi téléspectateurs de la 2STV. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp ci seen émission phare di célébrité en ligne ci 2STV nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi ci sunu kanam di leen baalu xaq di leen baal yàlla nu ci yàlla yóbboog jàmm defal nu ci ndam defal nu ci tawféex lu ñu ci xéewal gunu santale cheikhul xadim yàlla boroomam mi ko sàkk def ko mu ñàkk moroom def ko mu wéet ci teddangeem def ko muy ku màgg def ko jëwrinu yenant bi def ko muy sàkk ci képp koo xam ni yaa ngi ci islaam di sàkk ci deru nit ku ñuul di sàkk ci Afrique di sàkk ci àdduna bi yépp yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm di nuyu sunu frère sunu soppe Tange Tandian di ko félicité bu baax di am mbégte ci wuy si ko ci émission bii nga xam ni àdduna bépp nga koy bàyyi xel réew mépp a nga koy bàyyi xel jullit yëpp a nga koy bàyyi xel ñiy culture soxal ñëpp a nga koy bàyyi xel waaye émission bu rëy la muy célébrité en ligne kon moo frère Tange Tandian maa ngi lay delloo nuyoo di la sant di la gërëm di nuyu sénégalais yi ñuy toog yëpp jullit yi ñu seetaan yëpp ak taalibe yi di am mbégte lool ci wuy si la ñu fas yéenee waxtaane li nga laaj incha allah. jërëjëf yaakaar na ni sama gan nii la dugg see nee naa leen fauteuil royal laa yor ku amul loo xamante ni am nga loo war a wax ak askan bi doo fi toog waaye muy kër gu yaañ boo xamante ni damay am invité ba noppi am fa ma nekk jamono ji maa ngi yoonu daaru minnam bi di egg fi foofu ci sama studio mais nag dama am ku ma bàyyi sama kër. maanaam mooy koo xamante ni mooy toppatoo samay gan saa su ne nee nañu gan moom soo ko amee koy teral moo tax bàyyil na la fa butéelu ndox saa yoo bëggee naan ret naanal ndaxte jamono tàngoor la ñu nekk sama gan bi nag laa ne woon naa la su ñëwee nga joxol ma ko benn vidéo ñu seetaan ko ba noppi Amela vidéo bi su paree joxal ma ko. amuñu jenn tawat amuñu benn njàmbat sant yàlla rek lañ def ak xol bu sedd guy mu koy sant bu baax. ci relève bii nga xam ne moom la teg ci suñu kanam muy xale yi surtout sëñ Gana mi ak sëñ Abdoulaye bi Bichri ak ku mel ni sëñ Saliou sàmb ak yeneen i conférencier sëñ Ibrahima Fall mi ñuy relève boo xam ni da ngeen noo cautionné ci cofeel gi ngeen wan maa ngi ñaan ci barke sëriñ Touba Mbacké fu ngeen jëm. yàlla na ngeen fa yegg te bu leen pakk fil sëriñ Ablaye Diop yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu amee laa jox la léegi. Mhm. tey ki ciy wax di Bouchra. Mhm. dafa mel ni tey ay taalibe yoo xamante ni dañu taxaw jàng ba mokkal. Mhm. seen sëriñ berloo leen seen daara. tey ban commentaire ak ban jàngat kamay jox ci vidéo bii nga seetaan ak kaddu yu Bouchra yëkkati teg ko ci sa kaw ak kii di ah, euh, sëñ Gana mesere ak sëriñ Saliou Samb. Euh, kontaan ci lool bég ci lool. waaye jàppee ko tam soññee bu rëy ndax ci ki mu bàyyi koo ci moom muy alxaaji Busra Samb moom xaadimu rasul ku ne jooyloo na la ci Serigne Touba ku ne seetaan na ko am mbégte ci Serigne Touba mooy jëmm ji nga xam ni lu mat ñeent fukki at dox na ci liggéeyal sëriñ Touba wër na àdduna bi yëpp fu ne mu teg fa tànkam ci njàngale njàngalem Serigne Touba muy koo xam ni ñun ñëpp bi ñuy tuur tànk lañ koy topp. di ko seetaan di rêver di am bëgg-bëgg dem ba toll si mu toll kon tey sunu yàlla boole ci jataay moom ci mbaaxam ci teddangeem nga xam ni sëriñ la ci nun référence la ci nun moo ñu tette moo ñu ñemeloo mu yëkkati kàddu yu tedd yi jëme ko ci ñun ngir soññuñu ci yoon wi nga xam ni moo nu ko gën a xam xam ci li ci réussite xam ci pakpak pakk yi ci nekk xam ci coono yi ci nekk mu yëkkati kàddu yu tedd yi jëme ko ci nun soññee lañ koy jàppe ci bañ a jàpp ni àgg nañu déedéet ci yoon la ñu nekk dañoo war a gën a góor góorlu ndax boo amee sang bu la jiitu ci mbir ëpp la ci expérience dégg ci lu nekk jaar ci fu nekk mu taxaw wax la ni am naa ci yow yaakaar kon sas na la daf noo sas waaye nag ku ñàkk kiñaan la ku baax la ku tedd la te boo jaxasoog moom ngay gën a naw sax jikkoom noonu la mel kon yàlla na yàlla sàmm ko mu gungee ñu ba ca kanam a kanam a kanam amiin ah, ci barke Serigne Touba amiin yàlla fay ko ci kàddoom yu rafet yi maa ngi ciy am mbégte di sant tam sama ñaari rakk yooyu nga xam ni boole nañu kàddu yi muy alxaaji Gànna Mesre Muxtaar ak alxaaji Serigne Saliou Samb maa ngi leen di ñaanal ñoom it tawféex bu baax a baax a baax ah, li mu wax dégg nañ ko dinañu gën a góorlu ci yoon wi ah, di ko def rek référence di roy ci moom bëgg a àgg fa mu àgg te moom it dalal na sunu xel dëgëral na sunu yaakaar kon yàlla na ko yàlla fay yiw te fay nu ñun ñëpp te gën ñoo saxal ci liggéeyal Serigne Touba. lii daal encouragement la ay compliment la waaye tamit soññee la boo xam ni daf nuy avertir ñu gën a góorlu bañ a jàpp ni àgg nañu ndax ki ko wax du ko ndaw. ku mag a mag moo ko wax muy alaaji Busra Sam sëñ Ablaye Diop dama bëgg tey soo ma doon tekkil muridulaa hmm. baatu muridulaa mooy lan jërëjëf Tange euh, Tandian muridulaa baatu murid mu ngi jóge ci moo bu ñuy wax ci arab iraada iraada iraada waaw mhm. iraada mooy nammeel nammeel waaw yàlla sunu boroom mi nga xam ni moo sàkk jaam ñépp sàkk lépp moom ko yàlla day namm dara mhm. day am volonté ci dara bëgg koo neel loola nekk mhm. wa iza arada allahu shay'an an yaqula lahu kun fayakun wax na ko ci suuratu yaasin yàlla bu nammee benn mbir danaan ko nekkal mbir ma daal di nekk ci saasi kon yàlla am na namm namm buñ lay wax sax melo yi nga xam ni dafa war ci sunu boroom pour mu nekk yàlla sunu boroom faaw ñu boole la ci iraada day am nammeel baat boobu di iraada nag baatu muriid ci la jóge képp kuy am nammeel rek muriid nga ca la ngay namm Cheikhul Khadim nag jug ci baat boobu moom tëgg ko ci nañ jël sunu nammeel wuti ko ci yàlla sunu boroom comme yàlla moom rek a mat a am te ku ko am sa lépp jag yàlla moom rek a mat a jaamu ndax moo nu sàkk moo nuy rey moo nuy jariñ ku yàlla am na foo tële ku yàlla am na foo yem ku yàlla am na foo tàmbalee ku yàlla di nga fàtte di nga juum ku yàlla di nga fi jóge kon nag yàlla moom rek a moo yor njariñ yor lor mooy jubal mooy gindi mooy fay ëllëg ca bis pénc ba Cheikhul Khadim nag tëgg baat boobu delloo lépp yàlla tudd nu tudd yoon wi kon ah, ah, al muridiya al muridiya moom mooy yoon wi nga xam ni moom la yàlla jox yenantu bi alayhi salaatu wasalaam mu jox ko xaadim rasul ca mbàkke kajoor al muridiya mooy rek yoon woo xam ni ñi mu tënk dañuy am nammeel ci wuti yàlla seen borom moo tax sëriñ Tuubaa wax ni euh, isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani haysu qasada nee na murid mhm. dëgg-dëgg su ngeen ma ko laajee définition am sëñ ni mu ko firee mhm. mooy koo xam ni du bëgg du namm kudut yàlla borom moom lay bëgg moom lay namm ca lay dox jëm ca loolu mooy kon muridullah loolu la sëriñ Tuubaa tudde képp ku bëgg ànd ak moom ndax moom yàlla rek a ko tax a jóg képp ko nangu nga ci yoon wi muy wutee yàlla murid nga léegi nag li yaatu mooy marid mooy koo xam ni dafa teggi yoon ba noppi boole boppam ci murid yi waaye daal bu dee boroom mi ko taxawal teggi yoon teggi yoon waaw ba pare boole boppam ci ñi ne ci yoon wi loolu lu yaatu la da ngay gis koo xam ni dafa wàcc ci ndigal uh-huh. gis koo xam ni la sëriñ bii digle du ko def uh-huh. la sëriñ bii tere ca la nekk guddeeg bëccëg uh-huh. te soo nee ko doo murit mu xeex ak yow kon kooku dafa wàcc ci yoon te bëgg a boole boppam ci yoon wi waaye ki sos yoon wi moomal ko boppam ci ndigalu yàlla boroomam ak yanant bi ni mu tuddee murit mooy koo xam ne yàlla képp lay namm wut sëriñ bu mat sëriñ mu lay digal nga koy def mu lay tere nga koy bàyyi lu yàlla nekkul sa yoon nekku ca te yàlla defe naa lu baax rek yàllaa nga ci ndax mu sàkk lépp kon murit daal li nga ma laaj mooy kuy namm yàlla boromam mooy aspirant bi nga xam ne day aspirer euh, l'être suprême di yàlla kooku mooy muridullah loolu mën nañoo jël exemple maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin li ñëpp xam ni murid saadix la ndax sopp gi mu sopp Serigne Touba mësta am lu mu ci kooj lu mu ci rax dafa nekk lu sincère lu naturel Serigne bi tëju na bis bi muy tëju dafa rëdi benn rëdi ni képp ku jéggi rëdd wii fekk ma ci néeg bii ma nekk dinga nga tàbbi ëllëg safara te kenn du la ca génn bi mu ko waxee ku ñëw ñu wax li sëriñ bi wax nga ni kon naa toog fële ngir xam juboo gu sëriñ bi juboo ak yàlla borom bi maam Cheikh ibraahima Fall Baabul mu di Muridiin ñëwee ñu ni ko sëriñ bee rëdd fii dani comme tànkam bu tedd bee rëdd suuf si bala may jàll damay barkeelu ci suuf si mu rëdd dal ciy barkeelu ba noppi jàll rëdd wi sëriñ bi génn ni ko xanaa déggoo li ma wax euh, mbokk yi damaa wax ni képp ku jéggi rëdd wi fekk ma ci biir sawara dalay yay mu ni ko mbàkke dégg naa ko waaye man topp ma la ngir ragal safara topp ma la ngir wuti aljana man dama laa topp ngir yow rekk laa bëgg foo nekk ma fekk la fa gis sa jëmm ba noppi tàbbi safara moo ma dàqal fuuf ñàkk laa gis te dëkk biir aljana loolu mooy ngëm sans condition tegu ko furul yàllaa ko nattoo sëñ Tuubaa képp la bëgg te muy dëgg ci moom boobu melo nag sëñ bi dani képp ku ko am ci sa sëriñ muy da nga koo sopp te sopp gi di dëgg am nga benn melo remplir nga ko mhm. bi ko ñaareel nga jëfandikoo ndigalam saa bu ndigalam rotee nga jëfandikoo ndigalam saa bu ndigalam rotee mhm. saa bu la sëriñ bi ne defal nangam waaw ndax sëriñ bu mat sëriñ du la digal ci lu yàlla diglewul dëgg kon saa bu la sëriñ bi digalee ci saa si na nga ko jëfe que jëfe sa ndigalu sëriñ mooy deuxième mandarga bi tax mu tudde la murit sadiq est que troisième bi mooy nga bàyyi diingat sa sëriñ donte sa xel la diingat mooy lan sëriñ bi daal waru woon a wax lii moom da ngay dégg murit buy waxee noonu dëgg la sëriñ bi euh, waru woon a waxee nii yow ki yàlla booleel mu gën laa xam yoonu yàlla jëf-jëf wala mu wax-wax nga koy jéem a xool noo ko jekkale yow mel ni yaa ko gën a xam lu jekk kooku du melaw taalibe bu dëggal moo tax sëriñ bi ni kon nañu bàyyi diingat sunu sëriñ ci lu mu mën di jëf ak lu mu mën di wax ndee mënuñu koo atte rek bu ñu dugg ci jéem koo diingat ci sunu xol bi ko ñetteel mooy bàyyi tànn sëriñ bi la yàlla booleel di la tànnal xam nga tey màggal gii bi muy ñëw mhm. ñépp a ni dégg di déglu sëñ Muntaxa Bachir Bachir ndax mooy sëriñ Tuubaa kese di xaar nu muy doxale mhm. ci contexte Covid bi mhm. bi nee nanu ko def ndax ndigalu sëriñ Touba la woon te ndigalu sëriñ Touba jëfe rek lañu ci xam. sëñ bi te jël matuwaay yi. sëñ bi doguma la. waaw tegal foofu sa baaraam. waaw amee laa jox ma vidéo bi ñu seetaan ko dellu si waat. lii ma tax ma sama kanam ak sama nee na lii may wax nag kanama gannaawam na yàgg lool. la ci la ci jëm ndax liggéeyu Sëñ Touba rek. te te te day wéy di wéy. te loolu day wéy di wéy. kon buñ ko xañ dara.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 jëme ko nag ca la nga xam ne doxeen woowu nu dox doxin woowu nu dox ñu jëme ko ci mu mu lam nuy andil lam nuy andil mu yiwu adduna mu yiwu adduna ak yiwu alaxira loolu rek la ñuy loolu rek liggéey boobu buñ ci defee liñ ci man lépp loolu rek la ñuy nan ko xamee noonu loolu foo ci laa fi laa nekk nee foofu la nekk yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp te yi nag yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp yëpp waaw lañ ah, jëf jërë xam ne daal sant naa gërëm naa waaye daal ne daal sama xol sedd na guy. mel na sama aju faju na ba noppi. sama aju faju na ba noppi. waaw lu ma fi des yi. lu ma fi des soxla ma fi dara.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 mën na ma sëñ Ablaye. ñoo seetaanandoo vidéo bi. nga tegoon fa sa baaraam boobu seetaanoo vidéo bi. mooy ca la nga doon wax ñi gis tey suñu xalif. di suñu wasila. ki ñi sëriñ tuubaa dénk tey muy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké. ni mu waxee. dafa wax ak aalu. ne aajoom faju na. ci biir ak ci biti. liggéeyal sëñ Touba rek lay wut. pantécortiquage nga may defal ci message bii mu lancé ci màggalu 2020 bi ñu jëm. waaw xam nga moom lii mu waxee nii la mës mel. moom dafa mës tënku ci ndigal moom mii ñu digal tey. dafa mësa tënku ci biir ndigal. ndax dafa nekk jëmm joo xam ni. topp na baayam sëñ Basiir. mu yónni ko ci lu nekk. liggéeyloo ko ci lu nekk. ba làq ngërëmu baayam bi nga xam ni moo ko meññ. mu topp magam ji nga xam ni mooy taawu baayam. di sëñ Moustapha Bachir yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak leer di ko liggéeyal ba làq ngërëmam bi mu gisatul sëñ Moustapha Bachir mu toog toogaayal Cheikh Mouhamadul Bachir waaye mu xam ne yoon wi dañ ko cee yilif ndax ay magam ñu ngi ci te ay baayam yoo xam ne ñoo baayam a bokk meññi leen mu topp ay magam topp ay baayam yu ndaw yi nga xam ni ay rakki baayam lañu neen la nekke woon ak sëriñ euh, Abdul Ahad mi nga xam ni baayam la di rakki baayam noonu la nekkee woon ak sëñ Abdul Qadir bi mu nekkee ci xali xilaafa gi noonu la nekkee sëriñ Saalix wax na ci ay waxam ni sëriñ Saalihu jàngloo woon na ko xasida bi ñuy wax Nooru Daare ni. Nooru Daare yi ni. Nooru Daare ni mooy texel ñaari kër yëpp àdduna ak alaaxira euh, leer ji lay génnee ci sawara di la yóbbu ci aljana kooku mooy Nooru Daare ni. Mhm. xasida la bu sëriñ Touba Taalif. Mhm. bu gudd la 306 pages la. 306 pages. waaw nee na Serigne Saliou joxoon na ko ndigalu di ko jàngal bis bu jot. est bi mu ko waxee yàggul nee na ba fii mu toll sax mu ngi koy jàng ba tey ci ndigalu sëñ Saliou. fii mu toll di Serigne Touba. nga xam ne jotam li muy xat-xat dina ko booleeg aljuma jot mu defal ko sëñ Saliou. est kon dafa liggéeyal baayam sëñ Saliou. ba ñu noppee gis doomi Serigne Touba yi surtout Serigne Touba yi jël xilaafa gi. njëkkee ko ci magam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Fàllilu mu topp ko fii la takk 72 millions ñëpp teg ci bët mu wax ni at yii la sama baay dundoon sëñ Basiiru bi sëriñ Saaliw di ñibbi aljana daa fekkoon boobu ma nekkoon ci liggéey boo xam ni amaguma woon sa ndigal ndax dama koy wéyal wala damay taxaw comme léegi yaay sëriñ Touba moo tax ma ñëwaat di sàkku ndigal ndigal li may sàkku si su la neexee ma wéyal su la neexee ma taxaw waaye maa ngi koy sàkku si waat ci yow mii sëriñ Touba di ko sàkkoo sama hëddee ji muy li limi samay ati baay 72 millions la jox sëriñ Alaaji Ba noonu la nekkeek moom ba noppi koo gis mu laxasu topp magam sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar mu mu Amadou Lamine Baara mu sëriñ Touba ba sëriñ Sidil Muxtaar wax na ne li ma ko yéene sëñ Touba rek laa koy wax ñaanal ko ñaanu yéene gërëm ko def ko jëwrinam te bi mu koy liggéeyloo boobu liggéey am na ci mag ñu ko mag waaye mu topp seen Cheikh Sidil Muxtaar toppin woo xam ni yéem na képp ko bokkal jamam ba noppi koo gis tey jii mu mag ci yoon wi di joxe ndigal kon moom amul lu muy wut wax na ko ci vidéo bi nee na moom soxlaatul lenn ndax li mu bëggoon mooy gindi ko ci Serigne Touba. te Serigne Touba gindil la ko boppam teg ko ci yoon. kon nag ku Serigne Touba gindi mooy koo xam ne yaa ngi jëf te la ngay jëf dalaa leer doo làmbatu. kon nag bu fi bi dee ngërëmu sëñ Touba lay wut. te am na ngërëmu sëñ Touba làmbatuwul gindiku na. lu muy wutati nee na kon doy na sëkk li ma doon wut lépp am naa ko kon yàlla ñu tàbbi ca loola te mu gunge ñu ba ca kanam a kanam a kanam a kanam ci barke Serigne Touba kon daal wax ji day wane rek pas téefam ci sëñ Touba loolu la waxoon bi muy door a jël xilaafa gi nee na man euh, ku dem ma dem ku demul ma dem. dama leen di woo nag ngir yéene leen. li ma bëgg a am ci sëñ Touba yéene naa ko ñëpp. te xam naa ni lii dimbali jaam ñëpp mooy liggéeyal sëriñ Touba ak nekk ca la mu bëgg te loolu rek mooy sama yitte. kon loolu rek la waxaat ci vidéo bi ah, woo ñu tam ci màggalu 2020 donte contexte bu difficile la ñu nekk xam na ni ndigalu sëriñ Touba la woon. Mhm. te ndigal loolu sëñ Touba mi ko joxe woon. ndigal li du fi jub ba keroog ñu tàbbi aljana kon dañuy wéy ci ndigal loolu ak situation bu mu ñu fekkee ñu jël ay matuwaay te nekk ci ndigalu Serigne Touba. wax na tam lu jëm ci complexe bi nga xam ni bërëb la boo xam ni centre culturel bu mag la ñuy defaral Serigne Touba soññee na ci soññee ci université bi soññee ci liggéey yi nga xam ne moo yitteem ak wutul dara ngërëmu Serigne Touba képp lay wut kon loolu rek lañ jàngat ci vidéo bi. ba tey dañuy laajte sëñ Ablaye Diop Bachir damay dégg ñu naan 18 safar soo ma doon tekkil 18 safar mooy lan. 18 safar. Mhm. Euh, safar aw weer la. weer waaw weer la ci weeru arab yi. weeru arab yi. waaw xam nga tey ñun dañ ñoo yare noo xam ni dañoo euh, nekk ci sous la colonisation française boo xam ni 1960 lañ ci door a génn euh, di door a am sunu indépendance léegi nag yarin wiñ ñu yar ñoom jàngal ñu seen làmmeñ dugal ñu seeni école moo tax ñu màgg ci ba xamuñu weer yi jullit yi moom ñun janvier février mars ba décembre la ñu xam waaye. ci arab dafa am ay weeri boppam dafa am muharram muy weer am euh, weer wu ñuy wax dégg nga safar am lu ñuy wax rabiul awal rabiu saani jumaadul ula jumaada saaniya am rajab am chaban am ramadaan am shawal am zulqaida am zulhijja fukki weer yeeg ñaar noonu la ko arab di waxe safar nag weer la ci weer yooyu safar woowu nag sëriñ Tuubaa ci la génnoon ci fukki fan yi ak juróom-ñett mooy génn gi mu génnoon dem ci exil bi tukki bi mu tukki woon te mu waral sunu jàmm ji ñu nekk tey bi muy sauvé ji islaam ci fukki fan yeeg juróom-ñett la génn bindal na ko boppam nee na xarajtu ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii chehri safar nee na génn naa man xaadimu rasul man maa génn ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppoog bisu gaawu mooy samedi jëm ci géej gi ngir liggéey li yanant bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla tànn est-ce kon fukki fan yi juróom-ñett li muy représenté mhm. mooy départu exilu Serigne Touba ah. mu départ Mbàkke Baari Jolof tolloo woon ak ci calendrier bi ñu miin mi calendrier chrétien mu tolloo woon ak le 10 août 1895 le 10 août 1895 loolu la tolloon waaye bu ñu delloo nag ci li ñuy attewoo muy jullit mhm. atum jullit mu ngi dëppoo woon ci hijriya ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci la sëñ Bamba génnoon léegi nag beneen ma nekk ci Tange mhm. ma bi mooy beneen sagesse mu ci biir wax jooju muy lan euh, xam ngeen 18 18 si chiffre bu garaaw la 18 lu mu tekki ah 18 xam nga 18 boo ko boo ko boolee boo ko safaanee uh-huh. xam nga 18 1 ak 8 la waaw boo wëlbatikee 1 ak 8 da ngay am 81 waaw 81 ak 18 moo lay jox 99 noo dëjee yi. est-ce que. fi mu ne 18 ci la lépp di tënku boo ko wëlbatee muy 81 moo la yóbbu ci 99. est-ce que. fukki fan yi juróom-ñett tam ci la sëñ bi génn ba bis bi mu wootee cant sax nga xam ne diggante euh, ginaar diggante xar. diggante bëy diggante nag. ba ci gëleem boo wàññee seen tànk yépp 18 lay tolloo. est-ce que. te loolu la sëñ bi bëgguñu ñu berndee ko. ci wàllu lekk yi ñu ci lekk di ko sant la yàlla sunu borom ci wàllu bernde gan yëfay ñëw ñu mën leen a layal ba ñëpp kontaan xam ne bis bu muy sant yàlla boromam. kenn du Sëriñ Tuuba. Euh, loolu day delluwaat ci 18. 18 ba tey ñun ñëpp xam nañu maase fii ci senegal ni ku ci sa kër di lakk 18 ngay composé pour sapeur pompier yi ñëw fayal la lakk wi ngay lakkale. le ce que am déet. est dis que euh, safar la wax. te boo bindee safar bind safara ñoo bokk nuñ koy bindee. safar fukk yeeg juróom-ñett ci la génn fukk ak juróom-ñett ngay composé sapeur pompier ñëw fay la saw safara. foo dem ci àdduna. kon mu ngoog kon fukk ak juróom-ñett mooy génn ci baam ba génn libéré ñu ñun ñëpp ba ñu mën a sigg ci islaam ci la génn tam fayal na sunu safara ci la génn indil nu jàmm ak sëriñ boo xam ni dafa duun te mënta jeex. mu ne ñëw leen santale ma yàlla sama borom ci bis boobu ma génnoon di am ay coono muy fukki fan yi ak juróom-ñett loolu la kon 18 safar di représenté safar weer la. 18 mooy chiffre bi nga xam ni nombre boobu exact 18e jour ci weeru safar ci la Cheikh Ahmadou Bamba génnoon fii ci Sénégal départ Mbàkke Baari Jolof mu tolloo ak 10 août 1895 ñu indil ko fasam wa awnullaahi mu war ca kaw ñu teg ci mbalaanum sooy Cheikhul Khadim war jël loxo teg ci bopp sëñ Modou Moustapha al Karim teg loxo ci bopp sëñ Fallou ñaari doomam yooyu nga xam ni kenn ki boobu fukki at la am kenn ki fukki at yu manqué lu tollook juróom benn weer mu ni dénk naa leen yàlla ak rasulullah ak seen baay cerno ma dem te ñëw ngir lislaam sauvé ñëpp am jàmm loolu mooy départu sëñ Touba ci géej est-ce kenn du sëriñ Touba kenn du sëriñ Touba sëñ Ablaye Diop su ma la laajoon sëriñ bi lan la daj ndakaaru tey waaw loo may wax lu metti la fi daj loo xam ni nee na saa su ko fàttalikoo loolu képp moo koy bëgg a pousser mu jël ay arme ay ngànnaay ngir jaamaarloo ak tubaab bi ko dajloo ci Dakar ayaasa minni laahu xinda jeewali ibliisa isnaadayto biyaawali ayaasa iblisa isnadayto biya wali ayasa minni law hinda jeewali iblisa isnadayto biya xablu fi ndari bi ali badrin usoodi kaddiri nafaali xayri laawu fi ndakaaru kulla azan lii jarraxul makaaru fi ndakaaru kulla zamli jarahul makaaru jërëjëf ñu ngi nuyu sëñ Fallou Seck bu baax di ko dalal euh, macha allah ci njàng mi euh, kon Tange mhm. xasida googu mooy euh, inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun aya cheikhul xaddim moo ne yàlla naagaloona iblis ci samay mbir mënatu ci dara iblis is na day tuxoo bi yaa wali kañ la ko naagaloo mu ni keroog ba ma tollee ci tundu jeewal war a départ le 10 août tubaab bi war maa jël si foofa keroog la iblis découragé ci samay mbir nafaali xayri laaw xablu fi ndari nee na lu jiitu avant may àgg ndar sax fekk na yàlla dàqal ma lépp loo xam ni coono la wala problème bi qadirin wusoo di kadri mu dàqal ma coono yeeg problème yépp ci darajey waa euh, ashabul badar muy 313 ñu doon gunge yanantu bi ñuy xeexal islam ci seen daraja la ma yàlla dàqale coono yépp nafaali xayri laaw ba ma tollee Dakar nag la xat metti yépp yàlla dàqal na ma ko kulla asan li jarrahul makaaru lu la dàqal mbàkke mu ni bépp lor boo xam ni pexekat yaa ngi doon fexe mu wut si ma keroog la ko yàlla dàq safina xaadim rasul nee na bi may dugg ci bato bi engagé nag jëm Gabon keroog la yàlla dogal may xaadim rasul ku dul man du xaadim rasul may naka laa teg tànk ci bato bi mu ni bis ni ki tey singe naa ko man yàlla yaay xaadim rasul yaay liggéeyal yanantu bi tëdd ci madinatul munawara ku dul yow du xaadim rasul yow mi yee xaadim rasul baraani laa Conakry nee na yàlla génn na ma ci lépp lu dul noonu gar ba ma tollee ci dëkk bu ñuy wax Conakry ci Guinée min kulli jaanibil ilal manakiri ca la ma yàlla génnee ci lépp loo xam ne day ñoddi ab jaam di ko yóbbu ci lu ñu sib keroog la ko yàlla tàqaleeg man azabanilaw fii karambasa nee na ba ma fa jugee jaar ci dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire bërëb bu ñuy wax Grand Bassan foofee la ma yàlla dimbilee ba dàqal ma ki doon jéem a léewtoog man xablul mubaarisi anni xal basa duudu ma mbay lañ la ñu wax moo dugg ci bato bi fekk ko Grand Bassa naan ko xamoon nañ dinañ la génne fii nga nekkoon Sénégal ñu lay yëkkati di kañ tey mënoo dara da dem ci biir tukki bi tubaab bi ngay dajel keroon la ko yàlla dàq moom duudu ma mbay mënatul dara ci samay mbir ki doon léew toog man daani ya rahimu inda daaw mi nee bi ma tollee fu ñuy wax benee ci daw me ci la ma yàlla delloo liñ ma doon xañ dafa am parfum bu mu doon laal tubaab yi ne ko doo ko laalee ci sunu bato mu daal di koy sànni bi mu agsee foofu ci daw me ku ko nuyu nuyoo ko benn bouteille yu parfum loxo bi ma ax na ni tasawumi moo tax mu ne yàlla delloo na ma lañ ma doon xañ ci bi may toll ci entamé tukki bi bi ma tollee daw me lañ ma delloo lépp lu ma soxla woon ci parfum ba mu fa jógee la dem Gabon ci capitale bi fu ñuy wax Libreville mooy Limberwely bi ngay dégg Libreville la mooy capitalu Gabon tolloog cimetière Léon Mbaye fa lañ njëkk a wàcce Cheikh Ahmadou kulli wali nee foofa nag la ma yàlla defale loo xam ni benn wàlluy bu ngeen dégg musu koo am musu koo gis musu jot mooy lan asxaabul badar ñoo ñëw di ma dool dooleel man sëñ Tuubaa foofee laa ko nag gaynde yooyu di waa asxaabul nag nekk ay gaynde yoo xam dañoo tar ci bi foofee lañ ma feeñoo man sëñ Tuubaa di ma jàppale man zaxzaxal waasiya wal usooda ca seen daraja yàlla dàqal ma rambaaj yeeg ñi doon saytaane keroog la ñu xam ne mënuñu dara ci samay mbir lu la ko may mbàkke mu ni fu ma taxaw yàlla damay womatal secret laa ilaha illallah tafsira ma mën a toll man sëriñ Tuuba yàlla damay womatal mbégte mi mu denc laa ilaha illallah saaxali xayri laaw fii maa yomba nee na yàlla màng na mu jëm si ci man bi ma tollee fu ñuy wax maa yomba maashaa qalbiya wa ahlal janba fay goo xam ni moo ma fàtteloo li ma metti woon ci maa yomba loolu mooy lan dafa tegoon ñeenti bant yoo xam ni da koo defoon jàkk téewaatal bayit boobu saaxali xayri laawu fii maa yomba am ngeen xaadim rasuul dafa def ñaari weer ba jëm ci ñett ci fu ñuy wax Libreville saaxali foofee lañ ko takk bisu talaata ci garab boole kook treize spahis yoo xam ne ay tireur d'élite lañu saaxali xayri laaw fii maa yomba seen commandant commandé douze ñu nit bu ma waxee trois deux un hop na ngeen tiré ci kaw Cheikh Ahmadou Bamba saaxali xayri laaw fii maa yomba waaye ñoom ñépp ku tiire sa bal génn ray la yow mi tiire woon saaxali yomba ba mu des commandant bi commandant bi moo ko nettalil boppam moo tax sëriñ bi ni wahabalil wahaabu fii sulaasa maa yox jul asrata wa salaasa saaxali xayrillaaw fii maa yomba ba tey ci fiir ci lañ ko gasale menn pax moo xam ne dañ ko def genre benn genre piège saaxali xayrillaaw fii maa sunu borom maasaleel ko pax mi moo tax mu ne radama rabbi maa abdu ya xafar li darari wa saanani aman kafar ba mu jógee foofee dañ ko yóbbu nag ci àll bu ñuy wax la sylve équatoriale du Gabon muy àll Mayomba. saaxali xayri laaw fii Mayomba. Mayomba Serigne Bamba def na fa lu tollook cinq ans yoo xam ni ay jaan ñoo koy wéttali. saaxali xayri laaw fii Mayomba. cinq ans yoo xam ni dafa am ay xeeti jargoñ yoo xam ni leen wër lépp pasan la ñoo koy wéttali. cinq ans yoo xam ni ci biir àll boobu ay mëfër ak i segg koy wétali. saaxali xayri laawu fii maa yomba. cinq ans yoo xam ni climat humide mooy taw ci kawam day taw onze mois. saaxali xayri laawu fii maa yomba. cinq ans yoo xam ni foofu Serigne Touba nekk weeñ wu ñuy wax les mousses zézek yi transmettre la maladie du sommeil ñoo koy wétali. mu fay woy xeeti woy yu rafle yoo xam ni day wane ni moom amul fu ñu koy yóbbu ba mu jàq wala mu tiit ngir yàlla la wéttali am bis nag mu jël ñeenti bant defar ko bii ci kanamam bii ci ginnaawam bii ci ñaari wetam mu mel ni benn jàkka mu féete penku di jullil yàlla sunu borom ma yomba commandant bi daal di mer ñëw simpi bant Serigne Touba yi sànni ni ko bul ñu sonal Ahmadou Bamba fii julli xaju fii sëriñ bi ni mu bëggee yàlla ne na loolu daf maa metti woon waaye yanant bi feeñu ma ni ma dalal bu la dara metti naa la faye jumaa ju rëy rëy boo ñibbee sa réew saaxali xayri laaw fii maa di nga am jumaa joo xam ne kenn du julli di nërmal mooy ba ca Jurbel dinga am jumaa ju rëy jaaxal jamono mooy ba ca Tuuba saaxali xayri laaw fii maa yomba moo tax keroog bi mu ñibbisee le 11 novembre 1902 mu yëkkati ñaari loxoom benn bi junj Tuuba benn bi di junj jumaam ja ca Njaari saaxali keroog nag bi tubaab bi bun buddee banti sëriñ Touba yi sànni ko ne doo fi jullee dafa am ku fa nekkoon koo xam ni yelli sëy la tudd nekk Sénégalais daa am lu ko metti mu jub di kaasal Serigne Touba. saaxali xayri laaw fii ma bi coow li baree suñ Bàmba ni ko yelli bàyyil noonu yàllaa la dàq fayu dina ma fayul dina ma fay bu la ci coono fekk. saaxali xayri jamonoy dox ba 1902 Xaadim Rasul ñibbi si Sénégal tolloog 11 novembre. saaxali. def escale ndar mu ngi tolloog fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan baraxlu yónni maam Cheikh Issa Diène mu wol ko borom Daaru Muxti jóge fa dem Louga fa la ume ji weeru koor woow ci atu 1902 ñeenti fan mu rëppatal ak fas wa jàll fu ñuy wax bari jàmm siise ca ciise saaxali xayri laaw fii ma yomba juróomi fan yaakaari jàmm xaadim rasul wàcc fu ñuy wax kër sëñ séréloo ca sànnoo si fala toog ba korité ba mu fa jugee mu jàll ñaxal saaxali xayri jaar kër ma xujja xëri jóob jàll fu ñuy wax njeng jaw saaxali xayri jàll mbàkke kajoor seeti baayam ba sëñ ibrahima mbàkke borom saaxali xayri laaw fii jàll daaru salaam maam Cheikh Anta borom dërëm ak gërëm rakkam jëmu gërëm daal koy ganale ci juróom-ñetti fan. bis bu ne fukki nag ak juróom fukki bëy ak juróom fukki xar ak juróom fukki eh, ak juróom ci ay gëléem di ko def ba muy juróom-ñetti fan. saaxali xayri ba mu nar tër nit sax rendi ko ngir ganalee ko tan yi ngir xam ni ne Serigne ba ñibbisi. saaxali xayri laaw fi ma yomba. ba mu fa jugee la jàll daarul man naan gan nga lool maam Thierno ganale ko. bi këram nga lakkewaatee ca daarul man naan mu jàll fu ñuy wax ndaam saaxali xayri laawu fi yebal taalibe ñu defar kër gi mu yónni maam Cheikh Rafal ak maam Cheikh Anta ñu njënd ci ay meuble yu ñu installé ci kër gi saaxali xayri laawu ñu jëndi meuble ñëw ba tollu dëkk bu ñuy wax googo am pël bu ñuy wax Demba Ngari mu làmbu seen meuble yooyu teg ni sëñ Touba dafa yor ay ngànnaay mu kalaame ko ko ñuy wax mbaaxaan mbaaxaan daal di koy kalaame tubaab bi tubaab bi woolu sëñ Tuubaa tribunal ñu jàpp ne dafa yor ay ngànnaay xam ngeen ni buur moo ñëw ne yorul ngànnaay ak ko jaraloon lépp ngir défendre sëñ Touba sëñ bi ni def nga waaye dinaa la terale aljana ku la topp caaxali xayri laaw fi ma yomba ci ñu décidé waat ba yóbbu sëriñ Touba gànnaar 1903 4 ans gànnaar du xaj ci sama jataay mu matal 4 ans ñibbi si 1907. saaxali xayri la aw fii maa yomba. jóge fa jàll fu ñuy wax ci yéen jolof 7 la fa nekk ba 1912. saaxali xayri la aw fii maa yomba. 1912 mu ngi ñëw bisu altine tolloo 15 janvier ci njaareem. saaxali xayri la aw fii maa yomba. Raamu Masiri ila Njurbel la daal la sa sin law aayinoo sirama fi sayri ma raamu. saaxali xayri la aw fii maa fukki at ak juróom la sax njaarim door a wàcc liggéey waaye ba ko fa yàlla saxalee mu def fa at yu néew saaxali xëyri laaw fii ma yomba le 11 mars ci la jël nag pose première pierre ci jumaay njaarim borom jumaa ji boo xam ni maam Cheikh Issa Dieng la ko féetale moo liggéey jumaa ji saaxali xëyri laaw fii ma yomba liggéey bi àgg ci 24 le 1924 la liggéey bi ak saaxali xëyri laaw bi liggéey bi àggee ci juróom benn at ci njàmbaaruk maam Cheikh Issa Diène borom Diène ak Lagane saaxali xayri laaw yomba ñu def fan yu néew yelli sëy mi ma tuddoon léegi ca maa yomba ca Gabon doon ko kaasal ñëw ziyaara si sëñ Touba keroog bi jumaa ji ak see yelli say nuyu ko sëñ Bamba ni ubbi leen ko jumaa ji mu visité sunu jumaa jooju saaxali xayri laaw fi ma yomba mu visité lépp ba àggal ñëw daal di ak sëñ Touba ni ko lu mu def ak sama ñeenti bant ya ma doon kaasale ca maa yomba keroog yelli sëy dafa yuuxu ni ko mbàkke amoo moroom ci jàmm ñi saaxali xayri laa fi ma yomba loolu 1924 la ak boobu booy benn jumaa bi di njaareem saaxali xayri laa fi ma yomba 27 le 19 juillet la Serigne Touba génn àdduna ñibbi aljana saaxali xayri laa fi ma yomba bàyyi fi jàmbaar ja sëñ Modou Moustapha al Karim bàyyi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Mbacke ma 1929 au mois de février mu génn xiblay jumaay Serigne Touba ji ci Touba. caaxali xayri laaw fii ma yomba. ci sëñ Moustapha boobu laa bëgg loolu baayam ba nga xam ni mooy Serigne Mbacke Bousso moo ñëw génn xiblay jumaa ji. maasa qalbiya wa ahlal janba. keroog bi muy ñëw mu ngi ànd ak doom ji ñuy wax Serigne Mouhamadou Baaxir Bousso ak sëñ Mouhamadou Xari Bousso. caaxali xayri laaw fii ma yomba. sëñ Maodo Moustapha taxaw tem ba jumaa ji taxaw jumaa ji ko yàlla digoon ci Touba. man saa kon bu Serigne Touba nee ci bayit boobu nga waxoon léegi yàlla faj fajal na ma la ma metti woon ci sama xol la ñu saboote woon sama jumaa ja ci Mayomba lillaayi xad wasaltu indagal waa moo taxoon mu wax loolu daal cee teg nag ni lillaayi xad wasaltu indagal waa àgg naa ci yàlla rëkk bi ma tollee ci xeet bu ñuy wax waa gan waa wasan na ni xamaaya jurru bal waa loola soo xamul dëkk ba mooy Lambaréné Lambaréné ña ko dëkkee xeet waa tudd galwaa Sëriñ Tuuba employé ethnie ba waaye du ab dëkk galwaa mooy ña dëkkee woon Lambaréné kitaabati xablu la dal boxo nee na nag bindoon naa li lépp samay mbind lu jiitu may dem ci géej gi kafat xayaati yalat madho la bindoon mu jiitu géej gi nag moo ma fegal pexe yi nga xam ni ñi beew tey weddi yàlla di yéefari ñoo ko doon pexe alamani xalimu hinda mi aji xam te dara ump ko moo ma xamal ci xam-xamam ba ma tollee ca géej yu xóot ya mi masaxaw akabani kafira moo ma fegal tamit pexe yi nga xam ni yéefari doon nañ ko pexe ba may nekk ca profondeur maritim ya lam yalxuni hindal boo xaar dootuma jublu benn kàccoor ci jamono bi nga xamee ne nekk naak ñu beew ñooñu nga xam ne dañuy naan ay sàngara daa ximri xamrin aw dawaayi faasiqa naankatu sàngara yooyu nga xam ne caay-caay la ñu làmboo dootuñu ma jublu yàlla protégé na ma ci ñoom yasarali jamilu xinda muhlika yàlla nag moo ma yombalal lépp jamono bi ma nekkee ci ay xat-xat ñu may jéem a alak masan nani an jaalibin li mushrika yàlla moo ma ci lépp luy ñoddi jaam bi di ko yóbbu ci bokkaale yàlla mayuk yàlla sama borom mi nga xam ni moo ma nekkal ci fi bërëb yu yaatu yooyu di géeju gabon bi moo woom mat ak texe woom matam ak leer ak ngërëm tàbbal ko ci sama xol madali sama borom maa ngi koy sant ndax wommatal na ma ak leer jamono bi ma nekkee ci bërëb yu lëndëm wasannani an janibi man kafaani shaddama moom yàlla mi ma fegal njàqare ak ay pexe ñi nga xam ne ay yéefar yu weddi lañ tey saadati indal texe nag yàlla moo ko dogal ca moom yàlla sunu borom lii zaarat xinda zawil malaahi moo ma ko feeñalal keroog ba ma nekkee fokat yooyu di tubaab nee na dootul jublu mukk jiiruk sama dundu si waari daa baaxin loxol umoor dootuma jublu mukk lu dul ngërëmu yàlla sama borom mi nga xam moo yor sama dund kitab yàlla sellal sama mbir seelal sama lépp ba ma nekkee ca les gens du livre min shaqawati wa min kulli al-itab ma fegal lépp luy yeddange ak lépp luy texee di akramani inda yàlla moo ma teral ca biir ña nga xam dañ ko doon bokkaal man xaadali ilayhi bil idraki ci daraja yarantu bi nga xam ni ñépp koy jéem a jot te kenn mënu koo dab naa jeytu biya ya wali déyante nag moom yàlla ci woo koy ni ko yaa nasiru yaa may dimbale yaa wali yaa méngoo samay mbir kafaytani iblisa hindaje yow mi ma fegal iblis jamono ba ma tollee ca jeer jërëjëf sëñ Fallou maa ngi lay ziar kon nu ngi sant temps ah, waaw xasida googu mu yëkkati mooy ah, ayasa minillah inda jeewali muy xasida gu sëñ Tuuba tëgg ci inna ibadi laysa laka alayhim sultaanu yàlla dafa waxoon ak iblis ñoom ñaar iblis xam ngeen moo njëkk ci jaamu yàlla ci bërëb yépp waaye bi ko yàlla nii su jóotalal maam aadama mu gàntal sunu boroom daal di koy dàq ci nguuram mu ni ko nag yow yàlla danga nga maandu comme man defal naa la xeetu jaamu bu nekk oroo ma dàq te fayoo ma sunu boroom ni ko lu ma lay faye ma tàbbal la léegi sawara wala ëllëg en tout cas lu mën a xew dinaa la lakk ëllëg ndax da ngaa weddi ah, li ma la digal féeteelu ci sama ndigal mu ni ko kon ah, may ma pouvoir ma ne ci àdduna di yàqal ñeneen ngir ëllëg ma am ñu ma wéttali sawar sunu boroom ni ko di nga yàqal ñu bari ba mu des ñi nga xam ni ah maa leen téele sama bopp ñooñu doo mën ci ñoom dara sëñ baam ba nag bokk ca ñooña mu jël aaya booba inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun daal di koy tëgg xasida moom la woy keroog bi mu nekkee ci itinéraire tukki bi moo tax mu doore ko jeewal bi ko tubaab bi di jël si te woolu ko ñëwul woon yebal maam Thierno mu ngi dajeeg ñoom jeewal xasida gi foofa la ko doore ba biir géej gi moom laa doon décortiquer ah, sunu mbokk sunu rakk sunu jarbaat sëñ Fallou Seck doon ko yëkkati yàlla yàlla sàmm ko kon inna ibadi laysa laka alayhim sultaanu ah, moom la sëñ Touba tënk ci ayasamindilaa inda jeewali moom laa doon firi noonu boobu mu ngi tollu jeewal bi muy dem ci géej tey lan mooy relation murit ak café bii ngay naan nii café Touba waaw café ah, sëriñ Touba fekk na ko waaye nag am na ci lu kenn mustaam kafe xam ngeen dafa yàgg lool mhm. depuis ca Brésil Brésil nga xam ni ñoom dañ koy bay am na xeeti café yu ñuy wax café café Santos. café Santos Santos xam nañu c'est une ville brésilienne. Ah. kon kafe lu yàgg la. ci plantation yu njëkk yi sunu maam yi doon ko bay yàgg na ku dem Brésil xam cacao bi xam café dafa yàgg. dëgg euh, le café yi nekk loo xam ni dañ koy consommer ñoom tubaab yi bëgg ko lool. Mm-hmm. waaye Cheikhul Khadim dafa wax ni bi mu nekkee ci tukki bi dafa am bis tubaab yi def ay pexe jël kafe comme xam nañu da koy jëfandikoo ñu def ci poison bu dangereux bu metti boo xam ne ku ko laal balaa quelques minutes ñu liquider la nga faat ñu posone ko nag jox ko Serigne Touba comme cadeau fekk na yanant bi feeñu ko ni ko café gi ñu lay yót def nañ ci poison waaye dara du la ca lor sëriñ bi moom daal di koy nangu naan ko ba mu jeex su sunu boroom ne ko ni ko soppil naa la ko sax bis ni mu nekk ci sa moomeel est-ce que lu bon lañ ko ci doon wutal waaye bis ni dina nekk sa secret loo ci fàggoote sunu borom fekk la ci. ba tey ñi koy saaf di ko importe di ko yóbbu ci dëkku nasaraan tey jii gis nga. kafe ah, yàgg na si waaye sëñ Tuubaa nee na bàyyi naa tubaab beeg ñuulaay bi rek ak wexaay gi waaye secret bi yàlla sama loxo la ko teg. est-ce que. kafe googu jëlee nañ ci ku ñuy wax sëriñ Demba Kebe. sëriñ Demba Kebe. ci mag ñi toppoon sëñ Tuubaa la bokk. Mhm. sëriñ bi boole woon na ko ci ay secrétaire am yi ko daan bindal. Mhm. sëñ Demba Kebe ku mënoon alquran nee na sëriñ Tuubaa moo ne ko yàlla may na ma ci kafe. képp koo xam ni bokk nga sama ñoñ nangu ni yàllaa ma defal secret ci kafe nga koy jëfandikoo te bi nga koy jëfandikoo nga laab maanaam nga amee njàpp sel fas yéene ci liggéeyal sëriñ Touba ci barkeloo kafe bi nga ko biñ la ko joxee nga jël jox nañ la jukki alquran bi nga ko naanee mel nga ni ku wàcce kaamilu alquran est yàlla may na ko ci loolu est tam képp ku koy jàng di wax azaltal bala wal jëhra wal faqla wal wal ana wali xutta yaa muxtaaru maa taaba min ghina mu ngi ci xasida ak midaad yi képp ku koy jàng di ci ñaan loolu sunu borom dina la fegal ci ay musiba ak ci ay balaa ak ñàkk kafe tam dafay am yeneen njariñ yu ci nekk bu leen fàtte ni aphrodisiaque la mhm. ñi nga xam ñu ngi jëfandikoo kafe ñëpp yàlla dina leen dimbali ci wàllu ngóoram kafe tam ah, dafay indi ah, gën a passeefu gën a am ak wér yaram dina dindi tawat yu bari ci nit bari na sax ñu xam Serigne Saliou euh, ci jataayam bari na lu mu ko daan joxe. Uh-huh. te Serigne Salih café googu faje na ci aajo yu nekk mën naa ci indi benn exemple. Uh-huh. am na benn acteur de film bu ñuy wax Steven Seagal. Seagal muy Nico Nico ku ne xam na ni euh, ci diine bouddhisme la bokk. Mbacke Dioum indi ko fi. mu ngoog bi mu fii ñëw dafa amoon feebar boo xam ni demoon na ba ñaqam dootul mën a génn muy indi maladie sudorale bi mu ñëwee seet si Serigne Saliou ci kaasu kafe bi mu ko yot bi mu ko naanee avant muy jug jataay bi la ñàkk ba toog est-ce que kon café lépp lay faj waaye nag euh, nan ko fonk euh, di ko toppatoo di ko joxante dafa bokk ci teraangay murit yi yàlla may Serigne tuubaa ci tukki bi fekkoon na mu am waaye moo ci def secret boo xam ni tey kafe Touba wër na adduna bépp foo taxaw ñu koy naan teraanga murit la waaye tamit day faj dafay dolli tawféex day joxe barke te képp ku koy naan te sellal ko mel nga ni kuy wàcce kaamilu alquran sëñ Tuubaa ko xoon sëñ Demba Kebe kon daal café ci sunu mbir la bokk alqahwatu kooku dafa bokk ci moomeli sëriñ Tuuba ba tey sëriñ laay Diop dafa am ay photo yoo booba bëgg amee laa jox la ko ñu seetaan ko photo bu ci nekk nga wax ma ku ci nekk lan moo doonoon mission ci sëriñ Tuuba waa ah, kii de mooy sëñ moo du Al Karim kan mooy sëñ Modou Moustapha Al Karim kii mooy taawu sëriñ Tuuba bi njëkk a wuutu kii mooy doomi kokkeek ndaam kii mooy doomi soxna Aminata Lo mu tafsir Maxtaar Binta Lo mu ñoom kii mooy doomi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul mi feeñe Daaru Salaam ci le 17 septembre 1888 tolloog bisu altine kii mooy ki nuroog yanant bi tur nuroog moom turi wéejur soxna Aminata kii mooy ki sanc Taayif xam ngeen yanant bi gàddaaye woon na fële bis bi ñu ko solalee dem Taayif kii moo nuroog yanant bi ci lépp kii mooy taawu sëñ Touba bi ko njëkk a wuutu kii mooy ki réussir les cinq missions très difficile cinq missions yu difficile moo ko réussiral sëñ Touba bokk na ci fexe ba sëriñ Touba tëdd Touba te bant xat dammul moo ko jëlee ci njaareem euh, le 19 vingt 1927 fexe ba indi ko Touba denc ko kii moo ko def. est que kii mooy ki nga xam ni fexe na ba jumaay sëriñ Bamba ji ko yàlla diggoon taxaw ci contexte bu difficile avec crise des années 30. bu fexe ba jumaay Serigne Touba ji taxaw fexe ba raay bi jóge njaareem ak si Touba di fay kilomètre bu nekk un million ce yooyu jamono kii mooy jëmm ci nga xam ni moo doon layal ñi doon gas bi bis bu jot mu leen di toppatoo lu mat ñaari nag ak lu tolloo 450 kilos lu doon suur par bis nit ñi di xéewlu di liggéeyal Serigne Touba ba euh, ñu gas bi jële ko njaareem indi ko Touba kii mooy ki nga xam ni moo taxawu liggéeyu sëriñ Touba bi ba ndox mi di wal ci Touba dootuñu tàppaatuy sayaan sëñ Moussa Ka wax nag ko kii mooy ki nga xam ni moo fexe ba jumaa ji taxaw tey ba ñëpp di ko xool mu bàyyi koog rakkam sëñ Fall mu door ko àggale inauguré ko 1963 jëmm ji kon moo jëlee sëñ Touba njaareem indi ko Touba jëmm ji moo jëlee ah, raay bi njaareem indi ko Touba jëmm ji moo taxawal jumaay tuubaa jëmm ji mooy ki nga xam ni tam moo fexe ba Touba am titre foncier boppam. moom boppam mu taxaw ci temm fay ci millions yu takk lu tolloo 10 millions à l'époque fay ko tubaab ba am euh, Touba mën a jot boppam moom boppam kii yee ko def. que kii mooy ki nga xam ni tam ba tey moo woote màggalu Daarul Xuddoos mooy génn àdduna ji sëñ Touba génn ñibbi si Touba bu leen fàtte ni sëriñ Touba ni woon guddi googu ku ko fanaan Touba sunu borom jéggal la say bàkkaar te yéene naa ñëpp njéggal nag ma ko wooteel. kii moo ko woote 1937. indil nga ma beneen photo muy Cheikh Mouhamadoul Fadil. Fadilou Mbacké kii mooy ki nga xam ni bi ñu noppee gis sëñ Modou Moustapha Al ci mois de juillet 1945 fekkoon contexte bu métti guerre mondiale bi nekk fi boobu xam ngeen ni am na benn formule bu ñu wax E égale MC au carré. E égale. au carré. E égale savant bi ñuy wax Albert Einstein defar ci bombe atomique. ñu largué ko sur Hiroshima et Nagasaki 39 45. àdduna bépp di tàkk la deuxième guerre mondiale. kii moo toog ci boobu contexte bi mu toogee keroog fekkoon na nit ñi daan xiif amuñu lu ñu lekk. fekkoon na jàmm ñépp soxla fekkoon na nit ñi di lekk lu ñuy wax ràkkal. fekkoon na ndox jafe. fekkoon na xaalis jafe. fekkoon na solu jafe. mu toog ci xilaafa gi ni lépp day neex maa aye rakkal meng jiba muut daraa dareet jàmm ñooy kollu dadd fàllu Touba ak Daaru Salaam maa aye kii mooy mbàkkeeg mbusoobe sëñ Moussa Ka noonu na ko allahu zul fadlil azim ku mu jox ngëneel dee la yéem faalilu mooy fadlul amim turam bi doy na xarnu bi mooy doomi samsun wa xamar mbàkkeeg mbusoobe duñ ko njar moo namp ñaari meeni gor mooy Cheikh Bamba ci xarnu bi kii taxaw nii giñ nañ ko ku nekk waaye maay sëriñ Touba kooku di sëñ fàllu kon moo àggale jumaa ji 1963 moo miire armeel yi moo demal sëñ Touba Màkka 1928 kooku di Serigne Fallou moo bindal sëñ Touba kaamil yu kenn mënta lim kooku moo ni woon Serigne Touba jaay naa njureel gi ma jur jënte ko ak taalibe mooy bàyyi sëñ abool Baraka bàyyi sëñ Modou Moustapha Fallilou bàyyi Alaaji Baara waa kii mooy bàyyi sëñ Abdoul Karim borom makaarimul axlaax yi kii mooy doomi mbaakol mbaakol bi kii mooy doomi soxna Mariama Jaxate soxna Mariama Jaxate mu soxna Njeng si la libaat ak sëñ Modou Assu Jaxate sëñ Mewnu kii mooy ki fekk baax ci néegu alquran ci néegu ngor ci néegu fit ci néegu njàmbaar ci néegu mbaax ci néegu tabe kii mooy jëmm ji nga xam ni moo wuutu Serigne Touba ah, ginnaaw bi nga xamee ni Serigne Modou Moustapha dem na ci 45 Serigne Fallou dem ci le 6 août 1968 le 7 août tolloog mercredi 1968 kii moo jël xilaafa gi kii mooy le véridique dëgg rek moo ko ñoroon kii mooy le bâtisseur yokkum jumaay Touba sëñ Abdoulahat kii mooy la bâtisseur daaray Kaamil sëñ Abdoulahat këruk alquranul karim kii mooy la bâtisseur kër mag moom la résidence de Khadim Rasoul sëriñ Abdoulahat forage bi indi ndox mi sëriñ Abdoulahat marché Ocass defaat ci lu tolloog genn wàllu milliard sëñ Abdoulahat kii moo njëkk a woote ku 2 milliards ngir liggéeyal sëriñ Touba kii moo waxoon ni du ma tas yaakaaru sëriñ Touba ndax bi ma ganee àdduna dañ daf maa yaakaar su ma naree tas yaakaaram wuute ko kii moo yaraat murit yëpp teg leen ci yoon wi kii moo raw ñëpp ci alquran waaye kii nga ma indi mooy sëñ Abdul Xaadir borom Baxdaad borom Bustaan kii mooy Mbàkke Mbusoo be ba tey soxna Aminata Kanni Busaa ko meññ Aminata Kanni Busa suñ Mbusoo be ko meññ kii Serigne Touba baayam Serigne Touba mooy nijaayam mooy rakki sëñ Abdou Lahad ñoo bokk jamono ñoom ñaar ñëpp 1914 la ñu gane àdduna rawante bi bariwul ñaari weer la kële dafa feeñ ci weer wu weeru korite moom sëñ Abdou Lahad kii di sëñ Abdul Xaadir feeñ ci weer woo xam ni mooy weeru muharram di weeru tamxarit jëmm ji moo gane àdduna tàmbalee ramm keroog bi mu feeñee ci ndaam ci atu 1914 ah Serigne Touba dani borom daarul moxti maam Thierno demal joxe ji tur wi jamono bi ngay demee ba bi ngay dellusee koo fi dajal yàlla jéggal na ko ku fi daje yow yàlla jéggal na ko koo fi dab yàlla jéggal na ko ku la fi dab yàlla jéggal na ko ni ko yoon waa borom daaru jël tempsam ci yoon yi ngir bëgg ñëpp am texe kon gane àdduna di yóbbuwaate aljana kii ko mës def kii moo waxoon ni ku ma jullee yàlla jéggal ko jëm jooju di sëñ Abdul Xaadir mooy borom 1159 vendredi yi mu jiite ci 1148 ak 1040 1148 ajjuma la sëñ Abdul Xaadir jiite diggante 1968 ba 1990 waaye cey njaag cey kii sëñ Saliou njaag kii Serigne Salih kii mooy le dernier fils de Serigne Touba sur terre kii moo gane àdduna ci zul xaayda fukki fan yeeg ñeent fi weer di toll ñu ni mat na sëkk fukki fan yeeg ñeent ci la Serigne Saliou feeñ ci zul xaayda fan la feeñe ci dëkk bi Serigne Touba gën a yàgg ci Zahir muy 1912 ba 1927 di njaareem. keroog bi mu feeñee Serigne Touba jël tur wi. jox ko ko ñuy wax sëñ Mad Laam ni ko yóbbul tur wi joxal ma ko sëñ am Amsatu Jaxate tudde ko saaliha saaliha nga xam ni sëñ Tuuba dafa mel ni ko ko man sóobal wane ni kon am na lu mu ko fàggul si ngërëm doon ko tudde sëriñ Saaliwu le vertueux moo nekk nii 1915 la gane àdduna ñii ne nañu septembre le 22 ñii ni octobre waaye ci la gane àdduna fan ci njaareem al buqatul mubaraka sëriñ Saaliwu mooy njaxate mooy mbaakol mbaakol bi soxna Faat Jaxate ko meññ mu sëñ Moodu Astu Jaxate ak soxna Njeng si la libaas kii mbokk sëriñ Abdoulahat kii mbokkum sëriñ Soyibu jàmbaar ji la sëriñ Tuubaa bëggoon lool ba wax ni sama doom la su fekkee doon naa am doom saaliwu sama doom la moom mu feeñ 1915 1990 mu toog ci euh, xilaafa gi wuutu magam sëñ Abdul Qadir boo xoolee 15 ba 90 75 ans la kon at yi Serigne Touba génne àdduna Serigne Saliou rek a ko am toogal Serigne Touba waaye kaamilu ndono bi ñuy donn ci Mame ay sax moom rek mooy doomi Serigne Touba ji ko mës a donn ci dundam diggante 2005 ba 2007 ñaari at moo ko donnal Serigne Touba Serigne Saliou moo woote xel koom ñu fay dem di ko wuy ji di ko liggéeyal moo mokkalloo alxuraan ay junniy nit ñoo xam ne kenn mënu koo xayma moo daan sóor bis bu jot ñetti tonu ceeb ci ndonga yi moo bëri woon yërmande moo ni woon ku dul yàlla mi sàkk jaam yi ëppoo ma ci ñoom yërmande moo waxoon lu dul islam ëw ma ci defar ak yàq moo dëddu woon àdduna moo nekkoon le savant qui parle peu te raw ñëpp milliardaire bi dëddu àdduna di sol yére yu yem ta yor lépp yor teraanga yëpp moo njëkk a teg 10 milliards 400 millions ni woote bi damaa jiital joxe door leen a laaj kaay leen fekk ma ci liggéeyal Serigne Touba. nitu jàmm la woon boroom jamono la woon moo defar ñëpp yàlla fi xalifaam bi yàgg sëñ Cheikh Saliou ñu yàgg koo liggéeyal ak sëñ Moustapha Saliou ak seeni rak ak taawam bu baax gi soxna waalo ah sëriñ Saliou mooy boroom xelkoom borom ngeejaan borom jàppandal ak mbuur borom ndooka sangub seex Béthio Thioune borom jàmm ak jamono sëriñ Saliou Mbacke waaye cey kii nga andi kii mooy kan kii mooy alaaji Baara Fadilu kii moo waxoon ni sama téléphone bii coup téléphonique suy xettali jullitub yàlla dina ko xettali sama téléphone ku mu mën a xettali dinaa ko wootale ci sama téléphone kii moo waxoon ni sama kàddu gii su fekkee saa su waxee defaral jullit ñi seen booloo dinaa ci wax ngir jullit ñëpp booloo kii moo waxoon ni sama signature su fekkee mooy xettali jullit naa ko signal jëmm ju oyof la woon 1921 la gane àdduna kii ndindi la feeñee sëriñ fàllooy baayam soxna xari sàll mooy mooy ndayam ju baax ja sëriñ fàllu bëgg ko lool xamoon xër gi mu xëroon ci baayam sëñ fàllu fu sëñ fàllu mas di dem day wax oto bi oto bi alaaji baara na jiitu sama kanam ma topp ci ginnaawam ni ko alaaji mu ni mbàkke mu ni ko doxal ci sama kanam ndax yow kat xam naa ni sama bakkan moo la gënal sa bakkan yàlla xamal dama ko ci yow kon nag bu luy lore ñëwee bala moo agsi ci man xam naa ni yaa koy gàttandu jiitu ci sama kanam ni ko gërëm naa la kii la sëñ Fallou waxoon ni su ma amee ñeent fukki at dinaa siwaat 1968 mu dem ñëpp di jooy 2008 alaaji baara dikkaat di moom niru ko lépp bi mu ñëwee saltige yi borom xam-xam yi pluviomètre yi ñëpp wax ni taw bi day manqué du am ren mu ni li ma yàlla woon wuute nag li ñu wax dina yàgg dina neex na ñëpp dem bay ji tool yi dina gaaw dina neex keroog danoo bay 2008 ba bay gajanga kii moo ko waxoon kii moo waxoon kéemaan yoo xam ni waxoon na ni ku ñëw fii ma faj sa aajo ngir sëriñ baara miñ ma tudde waaye ngir sëñ fàllu mi nga xam ne gërëm na ma di sama baay di jëmm joo xam ni ah moo waxoon dinaa def la ci Medina indi ko Touba Touba mel ni Madinatul Munawara kii mooy kii mooy chiffre 7. chiffre 7 mooy kan. kii mooy Serigne Cheikh Sidil Muxtaar mu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke borom bii min kii bàyyi ma manoon ci aajo aajo bu bu ñu indil bàyyi mu faj ko sëñ Moussa Ka nee na ko nan tagg Ahmadou Lamine. moom la ñu may siral masuur xar baax la feese ba ñu guun bàyyi baa ko lëm ci xarnu ji baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far ko lëm ci biir soo ko gisee mu ngay bangiir di niroo kuy lu mat ci xarnu bi faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam ñu ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi rijaal yi xam nañu dara jaam bu nee jalañ ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi kii sëriñ seex mati lay soxna mati lay mooy wéjuram bu jigéen Cheikh Mouhamad Lamine Baara mooy wéjuram bu góor 1924 ci la gane àdduna jëmm ji moom la yàlla lëkkaleeg chiffre 7 léppam juróom-ñaar la xanaa xamoo ni mooy juróom-ñaar la bi doomi Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbàkke borom guy min kii mooy juróom-ñaaral bi xalifa Serigne Touba ci xilaafa gi kii moo toog septième mois ci xilaafa gi kii moo dem septième mois ci xilaafa gi kii moo jël sooroon yóbbu ko juróom-ñaari sooroon kii moo dawal 7 milliards ci liggéey bi kii moo daan yóbbu gaañi Makka màkka miin nañu ah ñi mu fa yóbbu màkka miin nañu ay ojaaj yoo xam ne moo leen fa yóbbu te mooy ñëw ba asolem këram gunge ñëpp ñaanal leen dalal seen xel kii moo daan maye moo daan saraxe moo tabaxoon këri sëñ baara yi moo doon dalal réew mi moo waxoon tarixa yëpp benn la bu tiijaan xas murit bu laayeen xas xaadir yéen ñëpp bokk nday bokk bàyyi sama ñaari maam yee ma fi bàyyi di Seydil Xaaji Malik Cheikhul Xadim kii la tarixa yëpp di jooy waaye kii nga indi kii mooy moom la ñu nekk ci jamonoom kii mu ngi gane àdduna ci 1933 kii doomi soxna Bintu Jaxate moo sëñ Moustapha Bachiru ak soxna Faat Kiné ak sëñ Isaaxa bokk lépp kii moo géeju lool ci xamxam xam te gi ci sëriñ Touba ak bëgg gi diine ak Pastef bi buy wax man na laa waxal bañ waxal benn bayit te raw ñépp ci xamxam bu yaatu kii moo jaaxal mauritanien ci déggam arab kii moo jaaxal mauritanien yi ci xam-xamam bu yaatu kii moo bëgg al alquran di ko jàng guddeeg bëccëg kii moo miin taxawaayu guddi di naafile ba fajar kii mooy ki nga xam ne baayam yëpp gërëm nañ ko magam yëpp gërëm nañ ko kii mooy murid saadix bi kii mooy jëmm ji nga xam ni 1988 fekk na Serigne Mor Mbaye Cissé waxoon lu jiitu ni su ma génnee àdduna Serigne Touba moo may jullee Serigne Touba moo ma ko diggoon 1988. sëñ Mor bay Cissé génn àdduna sëñ Abdoul Ahad mii sëriñ Touba woolu jëmm ji sëñ Mountakha ni ko demal jiite ko mat nga ko sëkk keroog la ñëpp xam ni kii mooy sëriñ Touba. jëmm ji rek moo mës a yilifandoo Touba yilifaale daar euh, euh, njaareem yilifaale Poroxaan mësta am ci histoire murid ginnaaw sëriñ Touba ku mës yilif ñetti bërëb yooyu yilif Touba yilif njaareem yilif Poroxaan boole na ñetti yëpp moom sëñ Mountakha Bachir jëmm ji mooy nga xam ni moo def mbokkam yëpp ay nawle te yilif ñëpp buy wax ak ñi mu bokkal sëñ Tuubaa da leen di wax yéen yéenay samay sang kii mooy ki nga xam ni moo maslaa ak tariqa yëpp jëfam ji mu def barki démb ci Tiwaawan di téeméeri million ci mbokkam ci doomu ndayam ci doomi baayam ci xaritam ci soppeem sëriñ Babacar Si Mansuur loolu wane na ak mbaaxam wane na ak fonkam turux yëpp këru diina yëpp la fonk kii mooy borom xam-xam bi nga xam ni daa pasté fu bëgg sëriñ Tuubaa moom rek lay wut ngërëmam mu jaral ko lépp jëmm ji la sëriñ saaliw ni woon demal nga taxawee ah, taxawul ma sëriñ murtada xaadimu rasul l'ambassadeur infatigable de l'islam mu dem taxawu ko sëriñ saaliw ni ko bu ndogal bi ñëwee ci manit yow rek nag ma taxawuwaat jëmm jii moo taxawu sëriñ saaliwu mbàkke moo ko jullee jëmm ji moo taxawu sëñ murtada kii taxawu na ay baayam taxawu na ay magam jëmm jii mooy ki nga xam ni moom la xol bi weex tàll ni perkaal mu bëgg lu rëy waaye bër jumaa ji mag bi ji mu inauguré ci Poroxaan tax na sax fi def nañ ci reportage ngir yéemu ci jëmm ji bi mbas mi nuyoo moo génne 200 millions teg ko ci taabal ji ni moo ko dimbalee nguur gi jëmm ji bi nu jànn xëy tiit moo wax ni lii mission la rek buy dox sunu borom yebal ko fi bu jeexee day dem dañ dalal xel yi kii moo woote màggal gi ci contexte boo xam bu difficile la di 2020 yi nañ santale Sëriñ Tuubaa yàlla te jël matuwaay yi rafet ci njot jëmm ji mooy ki nga xam ni dafa dëddu àdduna ragal yàlla tabe lool baax lool bari xam-xam lool maandu lool bëgg sëriñ saaliwu lool moo ko woyoon woyu rafet ja xasida goo xam ni daa joxoñ bàyyam ba sëriñ saaliwu ni ko inni uhibbuka yaa cheikhi uhibbuka yaa cheikhi wa musliha xaalina salaahuka min ahlil ilahi mushaahidu wa sulhuka maarufun ladan naasi waadihun xayaatuka islaahun wa dawman tujaahidu masaalihuna fi l inqiyaadi li qasdikum wa nasratukum fi llaahi xaflan tutaaridu wa maana asmikal matlubi fi kulli kainin waxat xustahu fi llaahi wallaahu moo jëdu xasida googu kii moo ko woy wooy ko bàyyam sëñ Saaliw kii daal moo dundal këru diine yëpp dundal tarixa yëpp ah di boole ñëpp di wax kàddu yu rafet am passif lool bëgg sëriñ Touba ba buy tudd turam sax dootul xam nu koy mën a waxe ngir bëgg gi mu bëgg sëriñ Touba tabe lool woyof lool yaatu lool bari xam-xam lool yàlla na fi yàgg te kii mooy sëriñ Muntaxa Bachir doomi sëñ Bachir ak soxna Bintu Jaxate waaye sëtu maam maaram ci meen sëtu maam maaram ci geño ci ñaari wàll yëpp foo lëñtu xool ko mu dellu ci maam maaram Mbàkke kii mooy sëñ Muntaxa Bachir kii mooy borom Poroxaan kii mooy borom Touba kii mooy borom Njaareem kii moom la yàlla dénk lépp tey jii mooy Serigne Touba ci kaw suuf kii moo topp magam yëpp la seen gërëm ba tey ñëpp di ko topp yàlla fi yàgg te wér temps tànjam amiin yàlla fi yàgg te wér comme nañ koy defee saa su ne rek dañu toll ci safar te émission bi dañu am suñu partenaire bu ñuy gungee moo tax tey ci safar jooju am na benn mbuus bu nekk noonu am diwlin j'adore loolu dama la koy jox addiya muy sa addiya ci safar bi benn bi yow laa koy jox beneen bi ma jox ko Fallou Seck ànd ceeg suñu partenaire di doomu Sénégal di Aziz Ndiaye di ko liggéey fii ci Sénégal muy huile tournesol ku nekk xam na màggal tuubaale jëm lekk ji foog mu sel la kon jamono ji bépp lekk bu ni mën a rek te amul jiwlin j'adore yaakaar naa ni taamu woo bu baax bi kon tey mbuus boobu man maa la ko jox muy ay diwlin j'adore ya ngay yóbbu kër ga ñu jàppale la ko ci safar bi beneen bi ñu jox ko Fallou Seck di ko gërëm muy doomu Sénégal un patriote sénégalais accompagne partout waaye ba tey Ablaye Diop Bichiri man dama am ngërëmte ak contentement ndaxte fi nga tibbee tey ak fi nga jëm muy askanu laa ñu tàmbalee ko lépp jëm ci xaadimu rasul ñu faram fàcc ko yoonu safar tax ñoo jóg moo tax duma la gërëm mais damay ñaan yàlla di sëriñ Touba waxoon kooko ca Gabon ne ko yàlla moo mën a fay yàlla na la sëriñ Touba xaadimu rasul fay ci tànk yi nga toog ba ñëw toog tey jii si fauteuil jii kon damay am mbégte am contentement di dellu siwaat nag en tant que murit di la tàllal suma loxo di la naan ñi ngi sàkkuwaat ci yow ñaan di ko sàkku ci télé bi di ko sàkku ci équipe technique bi balaa ñuy dem nag dama bëgg am beneen vidéo bu ma amee laa jox ñu seetaan ko xam nga da ngay dégg ñu ne diw gor nga mais sëñ Tuubaa mooy gor mhm. lu ko dal goree ku ko yóbbe jërëjëf wallaay ndeysaan jërëjëf sëñ Gana jërëjëf moom murid la ànd na maag moom dem Makka waaye man wax ci Serigne Touba ñaari baat jooyu waaye loolu la ko Serigne bi fayee ak hmm. ma bëggoon nga commenter ma ko waaw Alaaji Gana Messere Mokhtar day waxtaane Serigne Touba ci xaal di waxtaane Serigne Touba ci bëgg dafa jeex tàkk sëñ ko moo tax saa su ko waxtaanee mu feeñ ci meloom feeñ ci jëmmam nii muy jooyale sëñ Touba nii la ko ay junniy nit ak million de personnes di jooyale moom saa bu waxtaanee ci sëñ Touba ñu bari jooy parce que dafa sincère moom dëgg ci moom mu bëgg Serigne Touba di ko dund moo ko gën a lépp am fu ko Serigne Touba jëlee am fu ko sëñ Touba yóbbu tey ay millions de personnes bëgg nañoo mel ni moom te am na millions yoo xam bëgg te mel ni ñoom te ay millions de personnes ngi bëgg mel ni moom Alaaji Gana Messere te lu ko may Serigne Touba fa sëñ Touba jële nag ak fa nga ko jëmee moo tax saa su waxee ci Serigne Touba mu feeñ ci moom moo ko gën a léppam moom rek la bëgg ci lay wax ci lay dox ci lay fanaan ci lay yendu waaye sëñ bi teg na ko foo xam ne tey ku tudd turam ci àdduna bépp ñu xam kuy Gana Messere Mokhtar ngir bëggam sëñ Touba ngir xam-xamam ci Serigne Touba. ngir pastéefam ci sëñ Touba kon su tuddee sëñ Touba faaw mu feeñ ci moom faw mu daanu faw mu def jël loolu rek lañ koy jàngate yàlla yàlla sàmm ko guddal fanam wéral cëram te dolli ko defal tawfiix yàlla du dundu téeméeri at te lépp nekk ngërëmu sëñ Touba sunu soppe la sunu rakk la sunu xarit la jaxasoo nañ ci yu baree bari yàlla na ko yàlla gën a sàmm te gën koo defal ay ndame ki tawfiix ndax bëggam jépp sëñ Touba la ko jox te ku jox sëñ Touba sa bëgg mu téyel sa lépp te téyel na ko léppam kon yàlla na yàlla gudd fan yàlla na wér xanaa rek xam ni kii di wax moom ci xaal lay waxee bëgg ak xam xam li ko sëñ Touba defal moo tax mu lii dal ko te lii dal na moroomam yi waxtaan sëñ Touba yëpp ñii la ñii la ñuy dale léeg-léeg nga daanu daanu yoo xam ne sax doo ko mën a contrôler ndax bëgg sëñ Touba ko waral sëñ bi nag ku ko bëgg ndam rek ngay am ndax sëñ Ahmadou Diaw Paxa dani woon mahabbatul abdil qadimi wirdi wa huwa la dazil arsi xayru wirdi mahabbatul abdil qadimi tooti barakatan min barakatil moot bëgg sëñ Touba ñu ne ko waaw mu ni mooy sama wird waaye boo demee ci yàlla moo fay ngën gi wird bëgg sëriñ Touba dafay maye barke ci barke yi yàlla di wàcce ku bëgg sëñ Touba ñu séddale ci bëgg sëriñ Touba dafay dolli aw fan kon bëgg sëriñ Touba rek a fi nekk alaaji gànn daa bëgg sëñ Touba moo tax saa bu waxee mu feeñ ci saa bu jëfee mu feeñ ci yàlla na ko sëriñ Touba sàmm yàlla na ko sëñ Tuubaa aar yàlla yàggal taxawaayam te doole ko gërëm doole ko tawféex sunu soppee la dañ koo sopp lool amuñu sago ci moom ndax fi mu teg sëñ Tuubaa fa la ko ñépp teg yàlla yàlla jàppale ko mu yàgg lool ñépp si aare góor góor dëgg Bàmba ku may wayal njaag ma may ko ay jaag bu ngeen xamee njaag ma bamba wax leen kii ko kaa jar laaj man bamba laay laaj wax ma bamba doo marte doo jaaxal nga sëriif góor ñépp yaay seef jaaraama bamba ca biiru gouverneur yow nga daane gouverneur kabar ba muy riir dootul bamba sutu baab waxee baat bamba ni déedéet sax rekk ci déedéet ba dem yomba gaynde ga doon raam ba ca kanamu maam daam gi gaynde laayee moom xam naa Bamba. jërëjëf Ablaye Diop Bichri baal nañ la baal ñu àq yal nañu yàlla boole baal ñu màgg màggali ci jàmm ak salaam di gërëm tamit équipe technique bi nga xamante ni ñoo def lii. vidéo bi Birama Ndiaye la Petit Dia son Bamba def na lépp lumière yi ngeen di gis loo xamante ni innovation la du kenn ku dul bàccali waaye kenn du ami suñu maquilleuse bi tey lépp su leeree ami moo ko fi def waaye réalisateur bu mag ba du kenn ku dul El Hadj Wagué ah décor bi nag ak lii ngeen gis. mosu leen ko gis ci benn télévision du kenn ku dul Mbagnick ak Mader un grand merci au grand technicien le plus jeune le plus dynamique le plus expérimenté l'air moo assuré lépp lu jëm ci technique quant à montage Sidi Mouhamed Gueye il est incontournable c'est un jeune sénégalais dynamique nee naa leen télévision xale la El Hadj Ndiaye l'a très bien compris il a confié sa télévision aux jeunes et sont des jeunes sains dynamiques rigoureux et inspirés kon gaañ jox daje ba beneen dimanche incha allah ak keneen ci seen chaîne de télévision la 2STV bila muani bi mahnahwiyatin wa bil mahani